abonnez-wul sur sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar. daleen FTTV Sénégal kii di de Moussa Diop di avocat juriste ci di Sénégal yëkkati woon ay kàddu daal di koy jëmale ci candidature kii di Bassirou Diomaye mi nga ne waxtu bu ñuy wax ni ngi ci kaso bi moo ngeeg ay xeetu tuuma yuñ ci waaye tamit moo nga ak ay procès yuñ ko war a àtte ci réew mi di Sénégal ba xam ndax loolee dina ko teree bokk ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm li ne mel la kii Maître Moussa Diop tontu woon ci laaj boobee. il peut être candidat parce que xam nga ni mi ngi nekk ci ay yoonu si loxo yoon mais il n'est pas coupable il n'est pas condamné mooy kenn condamné ko kenn reconnaître ko coupable donc ku ñu reconnaître coupable nag moom la ñuy dox si yoon en droit tu es présumé innocent pense que am nous candidat boo en 2019, nous dix candidat mais nous ngi ko fekk mu donc ça ce n'est pas un problème du tout. je ne crois pas que d'ici quelques temps euh, le 11 décembre euh, ñu mën fi def ay procès ba reconnaître le coupable je ne pense pas ou bien ce sera vraiment énorme et flagrant. Quand nous avons dit kii dit maître Moussa Sow ne ñu tëj kii di Bassirou Diomaye Faye ci kaso bi ba noppi dit qu'il jëlee xeetu tuuma daal di koy teg lolé terewu ko mu daal di nekk candidat bi nga xamné né candidature mën nañ ko mëna valider ci réew mi di Sénégal ndax né koké amul benn condamnation définitive bu nek ci kaw ginaaw li ni mel kiri di professeur Moussa Diop né tamit ki di Bassirou Diomaye Faye ta nek ab candidat indépendant réew mi di Sénégal ndax ci li ni mel article L59 moko ko daal di ndax ne article bobé né képp ku bëgg nek ab candidat indépendant fa nga tok lu tollok at te bokk ci parti te nekk kii di Bassirou Diomaye Faye bañ déciduré parti bi di Pastef li ni mel tollul ci at donc ne kii di Bassirou Diomaye Faye mënta nekk ab candidat indépendant ci réew mi di senegal abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am xibaar